dégg moom ñëpp déggaloo nañ ko ci wet yi nga xam ne la ci ëpp def nañ ko wet yi nga xam ne am na lu des fii màggal li ci bëri comme ñooñu yokk seen yitte gën ci li ñu def ak dara bañ cee yeex fii baax ñi fi teew ñëpp tàmbalee ci gouverneur ak préfet sous ak chef de service yi bàyyi kenn ci barab yu bokkul di vraiment daal di koy jaay taxawaayam ci liggéey bi ak ko tàmbalee ba léegi di ko yóbbante nuyoo ci président Macky Sall bi nga xam moom la fi teewal buy des ci wax ji rek bu gudd ndax euh, jataay bi ñu tudd évaluation mooy di natt xool lu ci defam toll kon liñ ci mën a jàpp rek ci loo xam ne warees na ci soññee mooy wàllu taataa yi moom bokk na ci li gën a loolu moom faw ñu yóbbante ci ministère bi ko yoon mu gën cee góorgóor def ci yitte ndax mën naa ne mbedd yi ëpp ci bugg biir Touba kenn mënu faa jaar mooy lu mel ne mbeddum Gaye Touba yoonu jubbante bi yoonu mag bi jëm Tuuba euh, jëm Mbàkke itam boo xasee weesu dara ma naan foofu gis nga oto yi ni ñuy tëddee nga xam ne màggal gi ak circulation moom kenn mënu fa jaar yoonu Tuuba benn itam xam ne ni mu ak yeneen yoon yi ci des yooyu kon comme réseau assainissement bi àggu fa faaw ñu def ci pexe ndax pexe bi li ministre bi soo wax dëgg la ndax waaye bu xaaree ba. màggal bi dugg te manqué ko ji diggante bi day gën di ko xam ndax ñun ñi fi xëy jaar léeg-léeg mën ngaa départ fii bala ngaa jël dëkk bi am na fan wala bu it te waa dëkk bi rek fi mu gën cee def yitte faw mu gën cee def yitte mu ko ci soññ ndax màggal gi it day xew-xew bu rëy boo xam ne kenn waru koo woyofal wala nga négligé ko ndax euh, Serigne Touba toll màggal gi it am dayoo boobu budul woon nag li muy dugal ci réew mi ci koom-koom muy xayma yu wóor yoo xam ne waxuma nag muy feet boo xam ne day indi personnel ci réew mi waaye njëriñ lay indi réew mi bu tolloo lépp itam nit ñi si a rek ngir ngëm-ngëm te dëkk ci réew mi kon loolu waris na ko gën a joxaat yitte mu bañ a nekk rek réunion yoo xam ne daje rek lay doon te dara lu ci juddoo ndax kon ñi ñuy yebal itam war nañuy gën a bàyyi xel ci seen kilifa yeneen yóbbi ndax li ci ëpp ci ndaje bi dama seetlu ko mooy ñi ñiy teew duñ mën a jël benn décision daanaka boo waxee ren danañ ko jot te buñ dellusiwaatee nag ñu ngi digloo kon loolu loolu itam faaw ñu ko gën ko bàyyi xel kon wàllu ndox mi itam daaw ministère bi ko yoroon defoon na ci ren jii itam def nañ ñaari forage kon loolu lu baax la ñu ko ci sat bi ko ci gërëm waaye kon euh, maa ko koy yóbbante woon ministre Aly Ngouille Ndiaye waxtaan naa ci moom léegi mooy li ëpp solo mooy réseau bi ndax réseau bi dafa yàqu ci biir Touba ndax am na ci yoo xam ne 1960 la fi nekkoon ba léegi nga xam ne li ëpp ci ndox mi day delluwaat ci suuf waaye. forage yi fi nekk ci ñiy xayma wax nañ ne mën naa yor Touba ndax ci ginnaaw amoon na loolu juróom forage yu fànn waaye ñoom bu ñu ko yëgee fexe nañ ba forage yëpp ngi dox fi mu benn forage panut kon wenn na forage ci benn dëkk bu dëkk bu mënta am ndox kon am na lu ko indi loolu nag euh, yaakaar naa laaj na xalaat bi xool yoo xam ne ministère bi wax na ko ki yor jiite Maou Rahmati wax na ko xalaat yi nga xam ne bu ko ci defee dana doon jëriñ ñëpp ndax bu fekkee am jot ñu génn bënn ñaari forage wala ñetti forage te ndox mi di sotti par suuf ñoom itam liñ ci def bari na liñ ci def ci at mu jot daaw def nañ ci lu ba ñaari milliards ren jii itam ci lu bari kon bu fekkente ne saafara day jafe-jafe ba dëgg du loolu ñu ngi koy fàttali bu baax la ci des it moom waasale rek moom. daaw jéeg dañoo sàkkoon ñoom booba téeméeri kilomètre sax lañ sàkkoon ngir bëggoon yokk ko waaye boo fekk ne courant bi ci dëkk bi dafa demoon ba néew doole di ko directeur Saint la yëgee loolu yàlla def na mooy ministre de l'énergie mu defoon ci jiite jot li ko président ñu def ci taxawaay ba def ci euh, def ci xaalis lu mat ñeenti milliards ba courant bi ci wàllu qualité bi moo amatul problème ndax booba li ñu waxoon mooy buñ dee continuer di yokk courant bi te am sa yam war a àndal dana mujj ku taal sa courant yi dootu lañ amal njëriñ ren ne kon xëy na yokkuñ ko ci wàllu ay poto waaye yokk nañ ko ci li fi newoon ci courant daal yokk yokk nañ ko ba ñaar loolu da kon yitte la ak taxawaay kon ñu leen di sant ci loolu di leen ci gërëm yeneen fànn yi ci des yëpp itam li ci des ministère bi dina ko topp ndax xam na ko kon assainissement bi daal moom ak réseau bi ñu ngi leen ci euh, fàttali ndax déedéet màggal bi bu nga xam ne dana dugg ci biir nawet te mbedd xam ne ni mu demee boobaa ko dana gën a métti ndax boo arrière màggal bi ñaar fukki ci ginnaaw nekkoon na ci biir na daa boo tubaab mbedd bu tudd ndax tabax yi bëri boo suuf si la koy naan lu tabax yi gën a bëri tali yi gën a bëri mu gën a compliqué ci ci ci wàllum. fi ndox mi jaar ndax du seere kon loolu itam ñu bàyyi ko xel wàllu ko tëli itam sëñ Ousmane wax na ko ñoom nag gis leen koy jéggal ndax li tax ñu leen koy jéggal leeral nañ ni mu demee ndax xëy na ñañ jox liggéey fi mu war a jaar moo xawoon a waaye ñoom at yëpp nag wax dëgg mosuñu am gën jafe kon bu ci yeexee xamee tax xëy na noonu la demee kon gis koy jéggal ndax nit itam du caagi ne man moom yàlla rek ko def waaye nag eh, eh, tër yi nga xam ne nattoo nañ ko yéen ñii jëm ci ay dëkk kilifa yu jege Touba yoo xam ne daanaka biir Touba la wala ay quartier yoo xam ne moo doonoon priorité ci programme bi ndax am na ci quartier yoo xam ne bu xasee taw kenn dut fa mën a jaar te mbooloo mu bare fay jëm mooy quartier yu sori loolu bokk na ci li ñu waxoon ne mooy li jiitu kon loolu itam ñu leen ci soññaat bu màgg gi jàllee ba xëy na loolu ñu war def àgg ñu fexe ba gën cee def yitte mu àgg. jataay bi itam jataay la boo xam ne bokk ko rek jataay bi ñuy wax santante ndax bala ngaa sant day fekk nga xool fa yëf yi toll ba muy jeex nga doon wax waaye li ci ëpp daal def nañ ci yitte def nañ ci farlu kon li ci des itam ñu ngi xaar fay ñaari fan ñett xëy na yàlla def ci taw fi eh, ba mu àgg waa ONAS itam ñu ngi leen di soññ ndax dama koo fàtte ndax euh, wax nañ ko fii léegi ñu koy def yi te ndax màggal Tuubaa kenn waru ca def dara di ko wàññi lu mu xat-xat rek màggal ya toll noonu te màggal bu ñuy bette ndax at ba at leerul kon ñoom nañ xam ne njurum suñu Tuubaa kenn ko wàññi kon nañ soxla bu ëllëgee fa njaboon waruñu ko war a jëm yokk waaye wàññi moom xel waru ko xalaat kon ñoom ñu ngi leen di soññ ngir ñu xamee ko noonu boo léegi ndax dëkk bi toll noonu ndax Serigne Saliou Mbacké daa wax ne ak màngoo diggu ñu ngi tàmbalee ci yamale ñu yàlla yamaliwut ndax dëkk bi dafa rëy buñ ko bëggee natt ci dëkkub diine wala màggal rek day tuuti ndax loo xam ne ëpp na un million cinq cent wala deux millions ci dañ bu màggal gi dikkee noonu juróom million defi boo ko bëggee comparé lu ko yées rek day daal di jafe-jafe te day bari ñoo xam ne bu ñu tuddee turu Tuubaa lu fi jëf rek ñu gaaw ko yëm te xoolu ñi fi dëkk ndax bu fi ak kilifa diine dëkkutoon itam yaakaar kenn néew fii itam tàmbooloo dëkk fii loolu jàll na kon nag loolu ab ànd moom mooy loolu lépp loo gis muy lu baax nga sant ko gërëm ko loo gis mu màccee nga fàttali ko dafa ñu xam ndax Sëriñ Tuubaa loolu lañu noonu lañu yare yaa rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridun wa sabru yow suñu borom bu ma la ñaanee boo ma joxee ma sant la gërëm la boo ma joxut tam ma ma mënut a sant noonu nag lañ ñuy Sëñ Tuubaa yërewuñu ci ñaxtu léeg-léeg sax nit ñi di di di di wax loo xam ne duñ xam la ñuy wax nam dem waaye nit bu fekkee boo ko waxee ci biiru ne mu dégg te bu dee lu maanaam mu def ko fa saasa